mbokk alhamdulillah wa sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain ngi santaat suñu boroom subhanahu wa taala bi ñu wërsëgalaatee ñu daje ci ab néegam fa séenee jël benn bind ci wàllu fiq di ko sukkandikoo suñu téere bi di risaala bu ibnu abi zayd al xayrawaani ba ñu yegg si tey ci ñeen fukkeelu bunt bi muy baabun jumalin min al faraidi wa sunan ñeen fukkeelu bunt bi bu dee da bu dee da ngaa yor mool bu xonq bi yaa ngi ci page cent dix naam sama rudaani bi jotuma ko xool six cent six cent cinquante naam ala kulli xaal mooy quarantième bunt bi rek ak téere boo mën a yor nga xool quarantième bunt bi ñu ngi ci jël bind bu njëkk fa lillahi alhamdu tey mooy ñeent mooy juróomeelu fan ci li nga xam ne dañ ko tudde jumaa daal uula sun maam yi daan ko wax rakka ci gàmmo mu tombeeg le 20 décembre ci 2020 yàlla dogal na it ñu jàll bunt bi gënoon a jëfe ci téere bi mooy li nga xam ne da aju ci wàllu miraas loolu taxit ñu ngi woo càmmin yépp ñu delluwaat classe waaw léegi moom li ci des moom lu yomb la incha allah fa lillahi alhamd kon bu dee ne bokk nañu gis ñu jël suñu bind bu jëkk day wax ni lii day baabu jumalin min al faraid buntu loo xam ne dañ ko tënk ca farata ya wa sunanil waajiba ak sunna ya nga xam ne dafa war wa ragaiba ak ya nga xam ni dañ caa xemmem loo borom téere bi gis nañu ne bi mu jàngale lim jàngale ba pare fii dafay def benn tënk genre synthèse boo xam ne récapitulation lay doon tënkal la lim la jot a jàngal avant muy dugg ci yeneen bunt yoo xam ne day jàngale ci wàllu jukko ya ak yu demee noonu loolu mu ne kon lii dana la tënkal lenn ci farata yi ak sunna yi nga xam ne dafa war sunna yu war borom xam-xam yi dañ koy tuddee dafay mel ne farata ay gis nañ ne ñàkk koo def lay du doon lu xaraam waaye nag ñàkk koo defit jullit boo xam ne diinam ñor na du ko def mukk mi ngi noonu bu dee raxa it mooy la yonent bi alayhi salaam jàngale ba pare dicc ay yool yoo xam ne day tax ba jullit bi itamit du ko sàggane mu jëkke ci lan alwudu alwudu li salaati farida mu ne la nga xam ne mooy njàpp ci julli day farata la wa huwa mushtaqun min alwadaa ma nga jóge ca la nga xame ne nii mooy alwadaa mooy alxusn waljamal loo xam ne dafay rafet dafay taaru ila almadmadata wal istinshaq xanaa lu dul gallax ndiku ak sarax ndiku wa masxalu uznayni ak masa noppiya minhu fa inna zalika sunna loolu moom sunna la boo delloo ci bunt yu jëkk ya jàngal na la lu bëri ci wàllu njàpp fii nag mu tënkal la ko ci daanaka benn ligne ak genn wàll mooy xamal ne njàpp farata la amul benn julli booy jóg di ko julli nga julli ko ca jàppoo lu dul julli gi baaxul lu dul ñaari mbir moo am mooy ndoxkat amu fi walla ndox mënoo koo jëfandikoo waaye bu dul loolu da nga war a jàpp mu ne nag liñ ciy def ci njàpp yépp farata la ba mu des gàllax ndiku sarax ndiku massa say nopp ndax ñoom dañuy tegtaloo ni liy farata mooy li yàlla tudd ida qumtum ila salaa faxsilu wujuhakum muy benn aydiyakum ñaar ru wamsahu bi ruusikum muy ñett wa arjulakum muy ñeent yi mooy farata ci njàpp amma leneen lu dul loolu dañ naan lii sunna la loolu mooy nag mazhab Maalik soo demoon ci yeneen mazahib ñoom neneen lañ ko gisee ala kulli xaal wax naa la ko sànq ni farata mooy li munta ñàkk sunna nag mooy la nga xamee ni nii tamit boo ko deful day du tee mbir ma baax na waaye nag yàq ñàkk nga yool bu màgg a màgg te it xel nanguwul jullit bu ko xam ba pare di ko sàggani masalan jullit bu ñëw di jàpp ne ah lii daal galax di ko sara di ko ay sunna la bàyyi ko loolu xel mënu ko nangu kon loolu mbokk la la fàttali ca mu it jaamu yàlla gu màgg mu ne wa siwaaku mustahabun muraghabun fiihi lii nga xam ne nag mooy soccu moom dañu ko sopp waaye xem même loo jëme ca bokk yu ci bi alei salaam dani lawla an ashuqa ala ummati la amartuhum bi siwaak inda kulli salaa su ma bañul woon a sonal sama xeet danaa ne balaa kenn julli na soccu ah ah balaa kenn ne dafa am inda kulli salaa ci ci julli gu nekk na na socc socc googee na nga gis nañuy gis ne mbokk la ci nekk ci ay xéewal kenn xamul nu mu toll jullit war a góor góorlu bañ koo doon lu muy sàggane allahuma lu dul tubaab bi indil nañu li ñuy tuddee ay brosse à dents loolu lu baax la mais lu bari ci nit ñi dañuy xëy rek brosse pare nañu socc moom soccootuñu waaye mbokk socc day jaamu yàlla même bu dee sa bëñ dafa set li ngi mel ne njàpp mi rek ba duggoon ci duus bi sangoo juróom ñaari paani ndox teewul bu jàpp jote da ngay jàpp lu tax parce que jàpp gi jaamu yàlla la kon socc du ne day setal bëñ yi rek waaye jaamu yàlla la ci boppam looloo tax ba jullit war ngaa góorgóorlu bala ngaa julli su yàlla yombalee nga socc mi ngi noonee su ko defee loolee bu socc amul sax nga jël brosse à dents bi fomp sa bëñ loolee dana taxaw place su socc ak boroom xam-xam yi dañu naan lépp loo xam ne lu ñagas la lu ñuy dugal ci bañ dikk ko fompe loolee dana dana jël place am sunu maam yi nag ñoo ci dolli soccoo baaraam loolee da ngay gis am na boroom xam-xam yu ko nangu am na ñu ko nanguwul parce que dañ ñuy socc bi fu mu nekk loo xam ne mën facile la day teqali ko ak yow waaye da ngay gis ne lenn ci borom xam-xam dañ ni soo amul socc booy jàpp nga dugal sa baaraam gallax ndiku say bëñ loolu bokkul ci sunnay gallax ndiku mi ngi nekk ki amul socc jël baaraamam di ko soccoo loolu ñu bàyyi ci xel bu baax almuhim daal ñu bàyyi xel socc ñetteeli mbir bi muy fàttali wal masxu ala alxuffayni ruxsatun wa taxfiif masa ca bot ya day nekk na ak yombal nekk na ak woyofal loolu it boo delloo ci bopp téere bi jàngoon nga ko mu wax ci lu bëree bëree bëri waaye mbokk rawatina jamonoy sedd bi xamal ni masa ci kaw ay bot loolu lu ñu sunnaal la la gën a not ci mazhab Malik nag ñoom dañ naan kenn du masa lu dul ci kaw der waaye boo delloo ci yeneen borom xam-xam yi dañ ne lépp loo xam ne muur na tànk bi soo ca massa dina wér na doon loolu der la na doon loolu tissu la ay kawas la ay lu mën a doon kon yooyu mi nga xam ne nii xam nga sunnay massa ndax jàngoon nga ko ca bopp ba kañ ngay mën a massa mooy bi nga jàppee ba pare avant njàpp mi di toj nga sol say dàll fu njàpp mu toje man ngaa massa ci kaw dalli vingt quatre heures nga cee massa vingt quatre heures bu doon da ngaa nekk ci tukki mën nga cee massa soixante douze heures mi ngi noonu mooy ñetti fan yi tegaloo waaye day fekk ba nga ko ci dugal man nag jàpp loolee kon lay wax ca wàll googee ñeenteeli mbir bi mu lay fàttali wal xusl min al janaaba sangu boo àndeeg janaaba wa damal xayd ak dereti règle wa nifaas ak dereti wasin farida moom it xamal ne loolu farata la lii lépp jàngoon nga ko ca bunt ba waaye mu la koy tënkaatal ki ànd ak janaba dafa war a sangu njàpp du ko doy abadan lan mooy waral janaba mooy nit ki mën yu génn ci moom walla mu ànd ak jigéen même bu mën yu génnul ci moom soo ànd ak jigéen même bu mën yu génnul ci yow da nga war a sangu janaba su mën yu génnee ci yow même bu dee ànd ak jigéen na doon loolu gént la wala yow yaa ka sabab lu def ko ci loolu baaxul loolu lépp du tey da nga war a sangu janaba soxna si nga xam ne daa gis règle ba règle am jeex soxna si amoon doom ba dereti wasinam jeex ñu mel nii duñu mën a julli duñu mën a ànd ak seeni borom kër ca waxi lu ëpp ci borom xam-xam yi mooy duñu mën a julli moom mboolem borom xam-xam ñoo ci dëppoo la ëpp ci ñoom it dañ ni du mën a ànd ak borom këram lu dul ne dafa sangu lu dul ni dafa sangu farata ca lay mën a julli ca lay mën a ànd ak borom këram bokk na lum lay fàttali te jàngaloon la ko ci téere bi wa xusulul jumaati sunna sangu ca bisu aljuma sunna la wa xusulul idayni sangu bisu iid mustahab loolu moom dañ koo sopp wal xuslu ala man aslama farida sangu ca ka doogu dugg ci diine ji loolu moom farata la li annahu junub ndax moom kat dafay ànd ak janaba wa xuslul mayiti sunna sang néew loolu moom sunna la kon juma la lay wax lii di sangu juma sunna la donte ne ni am na ay borom xam-xam yoo xam ne dañu koo boole ci farata yi waaye lañ ca mën a wax rek la ci gën a dégg doomu mooy sunna la boo feddili ko yonent bi alei salatu wasalaam nee na man tawadda yowma aljumaa fa biha wa nicma wa man ixtasala fal xuslu afdal ki jàppoon dem ca jàkka ja day loolu def na lu baax waaye bu sangoon de mooy la gën loolu moo tax ba yow julit su dee ne ngànt amul bala ngaa dem jàkka ja nga la waay sangul su nga antaamee nga jàpp boo jàppee jumaa ja baax na am maa nag mu ne bu dee it moom dañ ko sopp ki nga xam ne dafa tuub dugg ci lislaam mu ne kooku nañ ko sanguloo janaba ndax moom dañ jàpp ne war na mën a ànd ak janaba ca borom xam-xam yoom la ñuy ixtilaaf ci ndax ki tuub dugg ci lislaam balaa mën a julli fokk mu sangu wala déet bu dee ni ñoom li ñuy défendre ci mazhab Malik bi ñoom ñu ne bu doon jigéen na ah fokk mu gis baax ay yoon bu dee na góor a it mas naa nelaw gént am lu génn ci moom kon balaa mën a julli fokk dafay sangu janaba loolu moom mooy mazhab Malik donte ne am nañu gis leneen mu ne sang néew sunna la loolee ci gisunu Malik wala boog gisunu mazhab Malik ñoom sangu néew defuñu ko farata julli ga mooy farata mais sang bi ñoom dañu sunna la amaa nag boo delloo ci li ëpp ci borom xam-xam yi ñoom dañu sang bi farata la comme ni julli gi nekk farata waaye bu dee mazhab Malik ñoom dañu sunna la ngi noonu loolu kon moo aju ci lim jot a jàngale bu ñu wala kulli xaal comme niñ ko doon defee it su dee ni liñ jot a jànge nii am na ci laaj boo xam ne mi ngi jëm ci liñ jot a jàng incha allah ñu doog a continuer bismillah waaw waaleykum salaam wa rahmatullah na am ki nga xam ne dafa yeewu gis tubayam tooy na mu wóor ko ne lii mënu yi la même bu fàttalikuwul gént gu mu gént dafa war a sangu janaba bu doon te ne da nga dem ba bëccëg nga xool su tubay gis ca mëni bu wow dañ naan dellul ca nelaw yi nga jëkk yi nga mujj nelaw gannaaw ba nga fay boolim julli yi nga xam ne dafa nekk ci diggante bi loolu mbokk mi ngi noonu wallahu subhanahu wa taala alam non sangu jan sangu juma dañ koy yoonal gannaaw ba nga xamee ni nii fajar xar na ci la nga xamee ni nii mooy bisu aljuma fa nga xamee ni nii fa la gëne woon mooy fa ngay jógee jëm ca jumaa ja ba boo delluwaatee ci téere beneen bu siiw bu ñu jàng suñu réew mi di qalil daf naan wa yu'idu al-ghusla in taghadda képp koo xam ne da ngaa sang ba pare añ doog a dem juma da ngay sanguwaat waaye loolu ay ngëneel la bu dee ne fajaru bisu ajjuma jot na yoonal nañu sang foofu borom xam-xam yi dañ naan maa qaaraba shay'an axaza xukma lépp lu jege mbir dafay jël atteem waa ji nga xam ne dafay yeewu su yeewoo su jullee fajar ba pare rek day liggéey te diggante bi jullee fajar ak fa muy demee juma du am benn temps pour sangu ku mel noonu bu yeewoo même bu dee fajar jotagul mën naa yéene sangu juma gannaaw bu mu dem ndax da koo leer ne diggante bi du am benn temps bu mu sangoo juma mi ngi noonu wallahu subhanahu wa taala alam naam naam bismillah sangu bi ngay sangoo saabu ndax dana la doy ci sangu ajjuma bu dee da nga koo yéene loolee da ngay gis ne sangu bi dana baax waa ji jógoon di sangu ajjuma même bu dee daf ci dogal saabu waaye li wéer mooy la muy mujjee mooy yaramam yépp dana ko raxas ak ndox mu set loolee da ngay gis ne dafay yóbbaale sangu sangu ba muy sangu ca ajjuma joojee su ko defee kii sangu juma mën naa sangoo saabu ba set doog a jël ndox kese sangoo mën naa sangoo ndax kese juma doog a sangoo saaboom loolu lépp da ngay gis ni dara nekku ci du tee sangoom dana baax wallahu subhanahu wa taala alam naam ala kulli xaal naam naam bismillah naam naam ndax tiim jàng nañ ko dana jànguñ tiim de ala kulli xaal tiim nekk ci la nga xam ne nii mooy xalil ay baaraam tiim yeneen ci baal sax mi ngi ko jàngale dafa masa kanamam masa kaw ténqam masa biir ténqam amma bu dee ci njàpp moom dañoo war a raxas loxo yi comme dañoo war a raxas loxo yi nag dañoo war a fexe ba diggante baaraam yi tooy bu ñu gisee na tooy na xalil boobu du ko jar bu ko bu dee ne am na lu ci tooy li nga fexe ba daal lépp a tooy loolu mooy la nga xam ne mooy nekk ca njàpp ma wallahu subhanahu wa taala alam naam waaw kon ñu jël beneen bind waaw mais nag yow juumoo de dafa mel ni borom téere bi moo juum waaw waaw moom moo moo indiwul tim ca waroon na ko indi mu ne kon wa salawaatul xamsu farida julli ci julli juróom day nañu xam ne loolu mooy farata la wa takbiratul ihram farida kabbar ba nga cey kabbar ngir armal julli ga ubbi ko moom it farata la wa baaqi takbir sunna waaye la des ca kabbar yi ca des yépp yooyu moom sunna la wa duxulu fi salaati bi niyatil farida mi ngi noonu bi bi bi niyatil fard farida dugg ca julli ga ci yéeneeg yaa ngi julli farata loolu moom it farata la wa raf'ul yadayni sunna bu dee ne nag yëkkate ba nga yëkkate say loxo moom loolu moom sunna la wal qiraatu bi ummil quran fi salaat farida ak la ngay jàng alquran muy ummul quran mi fatiha ci julli loolee moom farata la wa ma zaada alayha sunnatun waajiba la ca dolleeku nag day nekk sunna boo xam ne sunna bu war la kon mbokk day wax fii rek ne julli la ci farata muy julli juróom mooy julli juróom benn kaw kaw ñëw ni ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam laaj ko ne ko waaw sama diine mooy lan mu ne ko yàlla farataal na ci yow bis bu ne nga julli juróomi julli mu ne ndax gannaaw loolu am na lu ma war mu ne ko déedéet mu ne ko koor gi nag mu ne ko weeru koor la yàlla farataal ci yow at gi nag benn yoon la ko yàlla farataal ci yow mu ne ko lii la yàlla farataal mu ne waaw mu ne ko day du ma ci wàññi dara waaye nag du ma ci yokk dara war gi lay moom dem yonent bi ne saxaaba yi texe ne day bu dee wax ne dëgg kon julli la koy farata muy julli juróom mooy it farata bi gën a màgg bu ñuy def ci farata yi ci kaw suuf looloo tax yeneen farata yépp yàlla dafa yebal jibril mu jàngal ko yonent bi alayhi salaam julli juróom yàlla dafa woolu yonent bi ca kaw asamaan ya jàngal ko la nga xam ne mooy salawaatul xams julli googu nag la lay détailleel loo xam ne la lay tënkal rek ndax détail bi defoon na ko ci njëlbeenu téere ba ne kàbbar bu njëkk bi ngay def loolu moom mooy farata yeneen kàbbar yépp sunna la yeneen kàbbar yépp sunna la kàbbar bu njëkk bi boo ko bàyyee julli gi baaxul munoo fexe ba julli gi baax laa ilaha illallah la ñuy foor foor ki jógan di julli ne laa ilaha illallah commencé jàng fatiha julli gi baaxul yonent bi alei salaam nee na lay ubbi julli moom mooy kabbar mi ngi noonu tahrimuha takbir tahliluha taslim la koy jeexal mooy asalaamaaleykum am na yeneen kabbar yi yooyu moom sunna la sunna la ba moo taxoon même boo ci bàyyi yoon benn kabbar sax doo ko sujjootal bu dee benn la naam julli gi it da ngaa war a yéene ban julli ngay julli ndax yéen ñëpp xam ngeen tàkkusaan ak tisbaar amul benn différence lu dul yéene kese mooy seen différence kon fokk nga yéene kabbar bi ngay kabbar takbiratul ihram yëkkati ci say loxo loolu sunna la donte ne ni lu bari ci ñii bind ci mazhab Malik ñoom kabbar boobu la ñuy saxal waaye boo demee ci motta ak yeneen yi téere yi Malik yi dañ fay fekk mu saxal yeneen kabbar yi nga xam ne yonent bi daanu ko def bu daan roko bu daan jóge ci roko ak bu daan jóg ci ñetteelu rakkaa ba mi ngi noonu jëm ci ñetteelu rakkaa ba mu ne it la nga xam ne nii moom mooy jàng farat jàng fatiha loolu farata la te loolu yi borom xam-xam yépp dëppoo nañ ci ne imam ak kuy julli yow rek foog nga jàng farata fi ñu foog nga jàng fatiha fi ñu wuutee kay mooy ci ma'mum ndax ma'mum day jàng fatiha am ca ñoom ñu ne naam day jàng fatiha bu dee mazhab malik ñoom dañ ne déedéet ma'mum bi dana jàng fatiha bu dee déggul njàngum imam loolee duñ ko teg farata ci moom day nekk sunna ci moom amma bu dee mi ngi dégg njàngum um imaam dafa war a noppi déglu imaam imaam jàngaale na ko loolee moom mooy mazhab Malik ak lu bari ci ay borom xam-xam yi gis-gisin boobee mu ne nag la nga xamee ni nii moom mooy dolleeku ca fatiha ba loolu sunna la bu war sunna la bu war kii jàng na fatiha ba pare lan moo cay dolleeku mooy saar bu muy jàng wala aaya bu ñu comprendre saar bu ñuy jàng wala aaya bu am maana am na ñoo xam ne dañuy fay diine yàlla ci ñu ngi nettali koo xam ne nii mi ngi jóge woon Égypte nekkoon ci Pikine day jiite ba ne xayril maxdubi alayhim wala dalin gaa yi na amin mu ne mudhamatan allahu akbar ma maana mudhamatan allahu akbar ma mudhamatan ab aaya la mais loolu ban compréhension la am donc il faut nga indi aaya boo xam ne dafay am maana bu ñuy xam mi ngi noonu loolu moo tax ba boo doon di rek nga ne taaha sëgg taaha aaya la waaye ndax des na ko nangu déedéet il faut mu am maana mi ngi noonu kon mu ne nag loolu moom sunna la bu ñuy war te fi mu ne tey ji boo moo tax ba su doon tere da nga koo fàtte fokk da nga koy sujjootal mi ngi noonu boo gisee fi ñu yemoon ñu jël beneen bind mu ne wal qiyaamu war rukuucu wa sujuudu farida julli gi nañu xam ni taxawaay bi rukoo bi sujud bi yi yépp ay farata la farata boo ko déggee ci julli muy loo xam ne bu ñëwul julli gi du baax tey wax naa la sànq ni kii tari ca tariwul saar julli googee bu ko sujudtile dana baax am naa ki bàyyi rukoo fokk rukoo boobu da koy indi ki bàyyi sujud fokk da koy indi mi ngi noonu mu ne it la nga xam ne mooy jalsatul ula toogaay bu njëkk ba ngay toog loolu day sunnatun la wasaaniya farida toogaay bi ngay jëkk a toog loolu sunna la moo tax boo ko fàttee ba taxaw dañu naan la continuer julli gi comme dugg nga ci farata continuer julli gi soo paree nga sujjutal ko amma taaye ñaareel bi moom dafa nekk farata pas taaye bi ci boppam mais toogaay ba ngay toog ci boppam te ne boo demee lenn ci mazhab Maalik dañ naan la la cay farata mooy temps bi ngay jamono bi ngay wax asalaamaaleykum ndax salaam bi farata la toogaay ba farata la waaye almuhim la chaque ni ñu kii foo mu muy taay day toog mu ne it wasalaamu faridatun nga wax asalaamaaleykum loolu de farata la wa tayammunu bihi qalilan sunna nga jengal sa bopp nag tuuti loole moom sunna la mi ngi noonu kon ak julli fokk mu am salaam képp kuy julli ak loo mën a jàng tànk waxoo asalaamaaleykum julli ga baaxagut ba waxee asalaam nag julli ga jeex na mu ne wa tarkul kalaami fi salaati farida bàyyi ay wax yi ngay wax ak nit ñi ci julli loolu moom farata la képp kuy julli wax te moo ko tey julli ga yàqu na lu dul wax joo xam ne daa jëm ci defar julli gi lu dul jul wax joo xam ne daa yem ci defar julli gi su dee looloo loolu moom yàqul ci julli gi dara na doon imaam a ko wax na doon ñu nekk ci gannaaw imaam ñoo ko wax mu ne itamit wa tashahudaani sunna jàng gi ngay jàng ñaari taaya loolu sunna la wax na la sànq ne toogaay bu jëkk bi sunna la toogaayu ñaareel bi farata la waaye jëmmi taay ji ci boppam ñaari taay yépp loolee sunna la te bu doon tene ne da nga koo bàyyi da nga koy sujjuutal julli gi dana doon julli gu baax nga noonu mu ne wal qunuutu fi subhi xasanun wa laysa bi sunna la nga xam ne mooy xunut ci julli loolu day lu rafet la waaye nekkul sunna boo xam ne nii dañ koo saxal ne fokk dafa bokk ci sunnay julli da nga noonu doonte ne boo dellu woon lu mel ni suñu réew da ngay gis ne gox yu bari boo fa jiitee ci xunuutu loolu day juri fitna waaye xattaa ñoom seeni téere sax naan la nekkul ci loo xam ne ni ay sunna la yu ñuy feddali lu ñu sopp la boo ko defee xëyrun boo ko deful mi ngi noonu amul lenn loo xam ne nii effet la bu muy am ci ci julli gi wa is wa istibdaal wa istib mi ngi noonu wa istiqbaalul qibla farida ba ngay julli nga jublu ci qibla ba xamal ne loolu moom farata la loolu moom farata la ci jullig farata fokk da ngay jublu qibla boo ko deful julli gi baaxul ki jàppoon ba set jàkkaarloog sow ne allahu akbar julleem baaxul lu dul mu doon koo xam ne daa ñàkk a xam su doon da nga ñàkk a xam ba jublu feneen fudul penku buñ la ko waxee ci biir julli gi da ngay wëlbati ko jublu penku julli gi baax na su doon da nga julli ba pare it te la ëpp ci li borom xam-xam yi wax julli ga baax na doonte ne am na ci ñoom ñu naan da nga koy baamuwaat bu waxtu wi passé wul bu waxtu wa passé nag ñoom ñëpp ne nañ doo ko baamu mu ne wa salaatul jumaati wa sa'yu ilayha farida lii di jullig ak juma ak jóg ga ngay jóg dox jëm ca nañu xam ne loolu day farata la nit ñi war koo def wal witru sunnatun waajiba bu dee ne nag witre moom sunna la bu ñuy waral bu ñuy feddali mi ngi noonu ca mbokk kon juma moom ñëpp xam nañ ne ku amul ngant da ngay nekk farata ci yow lu dul ña ca lislaam génne muy la nga xam ne nii mooy ñi nekk ci tukki ak la nga xam ne mooy jigéen ña ñii ñoom juma ji waru leen wala ñoo xam ni sori nañ dëkk ba sori waay boo xamee ni nii te ji nodd lu mu foor foor munte yegg ca ñoom loolu dañ naan juma waru leen amma bu dee da ngaa nekk ci biir dëkk bi juma ji lu mu sori sori da nga war a dem julli ji ca juma ja witre sunna la bu ñu war wax na la sànq ni lay farate ci julli mooy julli juróom waaye witre nag witre sunna bu war la boo xam ni jullit du ko sàggane abadan jullit gu koy sàggane rek mooy sa diine moom dese naa ñor su ko defee benn rakk kese la mooy witre la ko jiitu di ñaari rakka ñu koy tudde shafa loolu sunnay witre la soo ko defoon ñeent moo gën juróom benn moo gën yonent bi alayhi salaam la pond la def juróom ñetti rakka def ñaari rakka doog a witre muy fukki rakka ak benn waaye loolu lépp witre bi moo ci julli gi gën a màgg gannaaw farata yi mboolem naafila yi ngay naafila ci journée bi yépp ba ci gën a màgg mooy benn rakka witre boobu mi ngi noonu boo demoon ci yenn mazahib yi sax ñoom dañ koo boole ci farata yi waaye nag nekkul la nga xam ne farata la wa kazalika salaatul iidayn loolu la ñuy wax ci ñaari iid yi tabaski ak korité mun yooyu ay sunna la yu war wal xusuufu ak bu dee ne jant bi dafa muuru wal istisqa ak bu dee dañuy ñaan taw yii yépp dañoo gis ni dafa nekk sunna yoo xam ne jullit ñi dañ koo war a taxawal bokk na ci it wa salaatul xawf waajiba la nga xam ne mooy jullit ñi nekk ci tiitaange daa di julli jullik mbooloo boo xam ne salaatul xawf nga xam ne dañuy xaaj mbooloo mi ñii di julli ñii di garde mu ne loolu sunna la boo xam ne bu war la ndax yàllaa ko dégle ci téeréem amara allahu subhanahu wa taala biha wa huwa fi'lun jëf la boo xam ne yastadrikuuna bihi fadla al jamaa dañ cay dabu lii di ngéneelu jullik mbooloo te mbokk jullik mbooloo ngéneel yi ci nekk màgg na màggay goo xam ne jullit ñi même buñ nekkee ci tiitaange waruñoo sàggane loolu nañ xaaj mbooloo mi ñii julli ñii garde leen gannaaw ba ñii ñëw mottali ña ca des dem garde loolu lépp boo delloo ci njëlbeenu téere ba dana la jàngal détail ba naka lay demee wal xuslu li duxuli makka la nga xamee ne nii moom mooy sangu ngir dugg makka mu ne loolu it da ngay gis ne dafa doon loo xam ne nii lu ñu sopp la ba tey mi ngi noonu rawatina jamono islam yi daan dox ak ji dugg ci la nga xamee ne nii mooy war gilim yeeg mbaam yi mi ngi noonu mu ne wal jamu laylatal matri taxfiif boole timis ak gee ca guddi goo xam ne day taw loolu ak woyefal la ko jóge ci sharia waqad faalahu alxulafau rachidun suñu delloo ci xulafa yi wuutu yonent bi ñoom ñëpp def nañ ko waljamu bi arafa walmuzalifa sunnatun waajiba amma nag boole julli ya tisbaar ak takkusaan ca arafa timis ak gee ca muzdalifa loolee moom sunna la bu ñuy feddali te loolu moo fa gën képp ko aji makka arafa da nga war a boole tisbaar ak takkusaan julli ko ci waxtu tisbaar da nga war a boole timis ak gee même bu doon timis ba da nga ko yóbbu ba minuit sax da nga ko war a boole timis ak gee loolu moom sunna la bu ñuy feddali ndax yonente bi alayhi salaam noonu la ko defe woon ci ne xool leen ci man ni ngeen di jële seen at wa jam'ul musaafiri fi xid fi jiddin sayri ruxsa mu ne tukkikat bi nga xam ne daa nekk ci étape di waaj a dem mooy dal nga fenn léegi nga départ nga boole timis ak gee loolee da ngay gis ne ruxsa la buñ la may loolu tax bu doon lu mel ne mazhab Malik waa ji nga xam ne dafa dem ci dëkk te demagul léegi salaan ñëw nga fi ci suba fi ngay nekk ba géey ñoom dañ naan waxtu wu nekk julli ko ci waxtoom amma nag bu dee da ngeen dem escale boo xam ne nii léegi ngeen dem balaa takkusaan di leen fi fekk départ ngeen ñu ne kon am nga ruxsa ci mën a boole la nga xam ne mooy waxtu julli yooyee mu ne wa jamuul maridi yaxaafu al yaglab ala aqlihi taxfif mu ne it bépp feebar bépp aji feebar ju ragal ne kat moom balaa beneen waxtu bee dugg si xelam mën na faddu xelam mën na dem loolee woyefal la guñ ko may wa kazalika jumaatu wa kazalika jamuhu li illa bihi fa yakunu zalika arfaq bihi waaye gannaaw loolu it bépp natt bu nekk ci moom mooy bépp lompañ bépp lor gu nekk ci moom nga xam ne feebar bi tax na su bëggee waxtu wu ne mu jóg waajal ko day metti ci moom lool ku mel noonu mën na boole waxtu yi waxtu it ñaar rek lañ cay boole ñaari boole ci am mooy tisbaar ak takkusaan ak timis ak gée kenn du boole gée ak fajar kenn du boole fajar ak tisbaar mi ngi noonu kenn du boole takkusaan ak timis boole munta nekk lu dul ñaar yi tisbaar ak takkusaan ak timis ak gée loolu rek lañ mën a jël ci boole na am jëndal jëlaat nañ ay bind yu bari dama xamul bu dee ne mbokk yi amaat nañ ci loo xam ne day aju ci li ñu jotee jàng ni bala ñu jël beneen bind na am bismillah ala kulli xaal kooku ñaar yëpp lay boole mooy bi nga ñëwee ci jàkka ji wala ci fu ngeen mën a nekk ñu imam ji te ñu liqaamal ko yaa ngi yéene roy imam ndax doo kabbar lu dul mu kabbar am déet doo rokkoo lu dul mu rokkoo kon yéene nga roy imam te it yaa ngi yéene julli bi ngay war a julli kon fokk booy julli mbooloo yëpp da ngay yaa ngi da ngay yéene ñaari julli yëpp mooy maa ngi yéene julli timis mais maa ngi yéene aussi roy imam looloo tax ba lu taxawaay bi yàgg-yàgg fokk nga xaar ba imam kabbar nga doog a kabbar mi ngi noonu wallahu subhanahu wa taala alam naam waaw ah ah ala kulli xaal mu ne yàlla moo màgg bu dee ne moo ko tey day ku mel noonu dafay fontoo julli gi yàlla gi te mën nañu wax ne ak julleem baaxut su dee ne dafa juum ne yàlla màgg loolee dafay waxaat rek allahu akbar loolee mu ne yàlla màgg di wax mu wax dolli ko ci julli gi loolee da ngay sujuutal waaye kenn du julli li ñu lislaam jàngal nga koy wuute di ko lakk ci beneen lakk loolu lislaam xamut loolu wallahu subhanahu wa taala alam naam naam waaw xara xara kii jàll mu ne imam boo xam ne waaw ala kulli xaal xunuut boobee da ngay gis ne ak ñaan la xunuut du dara lu dul ak ñaan ñaan googee ñuy tënk di ko xunuut ci jàkk yu bari du ne ab texte la boo xam ne yonent yi moo ko tëral ne nañ koy def su ko defee waa ji nga xam ne dafa nekk ci gannaaw imaam ab imaam moom day nekk di xunuut loolee bu ko neexee na tekk déglu ko bu dee ne day wax ca kaw muy li muy dégg mu wax amin su dee ne dégg ko comme li xew fii mazhab Malik nga xam ne ñoom seen xunut duñ ko wax ci suuf su boobaa su dee yow am nga say ñaan nga ñaan ko moo gën nga noppi ba baa imaam di di di di di di di di pare loolu daal mooy lañ lañ ca mën a wax mi ngi noonu budul woon it ne jàngoo woon la nga xam ne mooy fatiha fatiha mooy ñaan yi gën ci ñaan yi jàngoo woon fatiha su boobaa nga jàng sa fatiha ci place bi nga xamee ne imaam mi ngi noppi bu dul jàng nga fatiha nag su boobaa da ngay noppi wala nga def say ñaan wallahu subhanahu wa taala alam naam naam ndax nit ki mën na def witre kese chan mu def shafa naam waaye dañ la wax ne loolu ci ay sunnaam la ndax nit ki mën naa julli saamu liqaam kay mën ngaa julli saa ngi liqaam waaye nag bokk na ci sunni julli ñu liqaamal ko naka noonu it witre boo julli woon benn rakk witre kese witre nga waaye nag bokk na lañ ca sopp mooy ña loo xam ne ay rakk da koy jiitu la ca gën a néew mooy ñaar yeneen ci bàyyi salaam bokkoon na lëppoon ci sunnaam ñaari rakk yi mu daan susi la ci witre da ca daan jàng sabbih isma rabbika al ala ak qul ya ayyuhal kafirun léeg-léeg mu jàng iza zulzila ak qul ya ayyuhal kafirun loolu nag du ne loolu rek la ñu war a jàng loolu neex ngay jàng ala kulli xaal witre bi benn rakka bi la mooy farata bi mooy waajib bi amma nag am na lu ñu tudde sunnaam mooy fokk ñu jiital ko ci ñaari rakka loolu moom bu amee loolu mooy la gën wallahu subhanahu wa taala aalam naam naam naam naam ki nga xam ne dafa jóg ñi ngi salaatu juleegul shafa witre su dee ne moom mën naa julli witram avant muy julli ñaari rakkay fajaram su boobaa dañ naan ko julli sa witre julli sa ñaari rakkay fajar su dee ne nag xaju fa su boobaa dañ naan ko julli sa ñaari rakkay fajar witre bi suñu demee ba jant bi fenk ba kawe su boobaa masalan daana julli ñetti rakka ñaari rakka shafa ak witre ñu ne ko nag boobaa def ko ñeenti rakka su boobaa witre bi da koy remplacer shafa waaye leen mu julli ñetti rakka da koy def ñeenti rakka loolu mooy la nga xam ne sunna la ci képp koo xam ne julliwul witre ba fajar ba julli fajar ba pare mi ngi noonu wallahu subhanahu wa taala alam waaw waaw waaw ki dégg ñu salaatu ala kulli xaal benn bilaal amul droit salaatu lu dul wóor na ko ne waxtu wi jot na su ko defee loolu moom foo dégg salaatu su dee wóolu nga kay sa bilaal boobee foo dégg salaatu mën ngaa julli képp ku dégg salaatu bilaal day wone ne waxtu wi jot na ñeel ñiy ñëw ca jàkka ji ak jigéen ñi nekk ca kër ga ak ña feebar ak ñeneen ñoo ñëpp la bilaal di waxal te waxtu wi jot na kon su boobaa même heure bañ tëral ca jàkka ja bu jotul it loolu moom amul problème waxtu wi jot na comme neex mën ngaa julli sa ñaari rakkay fajar boo dul dem jumaa ji it mën ngaa daal di julli sa farata loolu it mooy bilaal it war a def attention ba di dem ba mu wóor na leen ne waxtu wi dugg na bo ñu doog a yëgal nit ñi ne waxtu wi dugg na mi ngi noonu wallahu subhanahu wa taala alam waaw maa ngi doon jàpp ne waxtu yi moom li ci des bëriwul te ñoo bàyyi bilaal kon mu nodd du ko defee ci des ñu ñu yeggalee ko question yi ah am am jotagul waaw waaw bismillah bismillah chafa witre mi ngi gënee fi ngay jeexale say naafila su doon te ne yow ñaari rakkay kese ngay julli comme niñ ko miinee fii fa nga jullee gee ba pare man ngaa def ci shafa witre ki nga xam ne mooy abi hurayra nee na xaritam ba day digal na ma ñetti mbir naay def samay chafa witr ba la may tëddi naay julli ñaari ràkka ca yoor yoor te naay woor ñetti fan ci weer wu nekk loolee da ngay gis ne mooy la nga xam ne moom mooy la ñuy jëkke wax amma bu dee ne la gën ca gën waa ji nga xam ne dafay yewu guddi di naafila julli naafila ba ngay naafila ci guddi mooy la gën boo naafila ba pare tëje ko la nga xam ne mooy witr loole moom mooy la nga xam ne nii mooy fa la gënee bu dee ne nag ragal nga ay biddanti defal say witr avant ngay dem di tëddi mu desit beneen laaj boo xam ne bari na ñu koy laaj lool mooy ki witr ba pare ndax mën naa naafilawaat mbokk ki witr ba pare mën naa naafilawaat mën naa naafilawaat li yonent bi alayhi salaam tere mooy ñaari witr ci guddi su dee ne naafila nga ba witr yàlla dogal nga yeewuwaat ci guddi gi man ngaa def si yeneen naafila sans nga witraat mi ngi noonu am na lenn ci ay borom xam-xam yoo xam naan da ngay julli benn rakka mu chafa witre bu njëkk ba nga dogi waaye yooyu ay takalluf wa de rek la witre daal boo ko xisee ba def sunna la def nga ko jeex na yàlla may na la occasion julli waata lu la neex sàngi witre am maa nag bu dee am nga yaqin ci ne man kat man danaa yeewu ci guddi gi bàyyil ba def say julli ba pare tëje ko la nga xam ne mooy witre wallahu subhanahu wa taala aalam mi mi ngi noonu kon ñu bàyyi bilal nodd lu ci des ci waxtu yi xam naa ngir mottali ci loolu ñu doon wax sànq bal rasul sallallahu alayhi wa sallam ci ay xadis yu wér yow mi yor sifatu salaa bu cheikh nasiruddin albani boo demee nanga ko te fekk bari woon na lu yaay Aysa nettali ne su ma saan wiitir ba pare daane julli ñaari rakka yoo xam ne nii da daan toog julli ko su paree sëlmal sëlmal boo xamee ne nii danañu ca sax yee gannaaw bu mu ne subhana malikul quddus subhana malikul quddus rabbul malaikatu war ruux ay loolu sax sunnaal nañ julit léeg-léeg boo julee ñaari boo julee witr pare boo mënee toog def ñaari rakka comme na ko yonent bi alayhi salaam doon defee liñ ciy insisté rek mooy ku witr ba pare mën nga naafilawaat problème bi rek mooy bul witr ñaari yoon ci guddi gi wallahu subhanahu wa taala aalam naam bu dee ne mbokk yi doon doon kii bismillah naam naam ki nga xam ne dafa nekk policier wala militaire fajar jotagul mu julli ci wax avant muy dem mbokk loolee jaaduwul loolee jaaduwul bépp julli bu ñuy julli te waxtoom jotul julli googu baaxul lu dul julli yi ñu mayee ñu boole ko man nga julli takkusaan une heure bu dee tisbaar jot na man ngaa julli gée sept heures et quelque bu dee timis jot na amma fajar kenn mënu koo julli ci waxtam jotul timis kenn mënu koo julli ci waxtam jotul loolu it moo nekk danger ci métier yooyu nga nekk ko ci dëkk boo xam ne seeni loi sóoraale wuñ ci diine ci tey da ngay gis ay militaires yoo xam ne mën nañ leen woo jalonnement ñu jóg cinq heures du matin fa la ñu nekk ba une heure ci bëccëg donc amul benn temps booy am pour julli loolee mbokk da ngay gis ne ay mbir la yoo xam ne nii bu doon dëkk la boo xam ne dëkkub lislaam la fokk ñu waajal ay relève yoo xam ne même bu doon tene nii dix minutes ñu may leen ko ñu julli mais duñ leen bàyyi ay mukallaf yoo xam ne ni surtout métier boo xam ne heure bu ne mën nga ci dee ngay jóg faatu waxtu yàlla bi loolu mbokk da ngay gis ne jaaduwul julli kenn mënta julli ci waxtu yu jotagul bari na ñu bari ñu muy dal ñoo xam ne dañuy jóge seen kër kër Masaar ay fu ko gën a sori bi ñuy départ fajar jotagul bala ngaa yegg fa nga jëm fajar passé loolu day la gënoon ci yow mooy ngalawaay utul ab étape boo xam ne da nga fa wàcc na doon pikin la am fu mu mën a doon ci yoon bi nga wàcc julli sa farata fayat cent franc continuer su dee ne loolee lor la ba lor la ba lor la nga julli ca kaar ba wala ca tata ba na nga mëne waaye jullit du julli avant waxtu wi jullit du julli après waxtu wi fekk mi ngay xalam wallahu subhanahu wa taala alam naam naam waa ji nga xam ne dafa def aadam toujours dafay bàyyi ba heure ba ko neex mu daal di tëdd nelaw nag ba heure ba ko neex mbokk loole kooku diineem ñoru ko képp koo xam ne sa diine dala ñor doo def loolu yonent bi alayhi salaam da daan bañ nit ki nelaw avant du liggéey da daan bañ sax ci ay waxtaan après gée te mooy bépp waxtaan boo xam ne nii mën naa tax nga fàtte waxtu wi ñu nekk ci ay grand place ba ay deux heures du matin mi ngi noonu kooku nan ngay yeewuwaate cinq heures et quelque pour julli lu bari ci ñoom donc dañuy branler dañ koy waxe ñoom ba ba jant bi fenk fenk mbokk loolee jullit dagganul mu def ko programme am bu lay dal dala del benn yoon ci at bi waaye ku nekk xam ne ne suñu liggéey yi ñuy liggéey ñu embauché la ci liggéey man ngaa xëy ñëw ne tey dama biddante ñu comprendre la waaye ndax man nga chaque jour bala boo waree xëy sept heures chaque jour neuf heures nga ñëw bu ñëwee nga ne dama biddante boo ko defee ñaari yoon ñett yoon fokk am na fuñ jaar ak yow naka noonu it diine yàlla ji noonu la demee mbokk julit dafa war a xam ne suñu borom mu ne inna salaata kaanat al muminina kitaaban mawquta yàlla dafa wóotal julit ñi heure looloo tax tisbaar nañ koy noddee timis nañ koy noddee bokkul ak fajar fajar bilal da daan asalaatu xayrun min an naw jóg leen ngeen julli loolu moo gën seen nelaw yi ala kulli xaal julli daal heure bu faatee julli benn yoon xoolal ko mel ni Omar ibnul Xattaab nee nañ bu ma sànn faat naafila guddi waxuma farata de faat naafila guddi la mi koy faje mooy guddi ga ca tegu du nelaw guddi guddi gi yëpp da koy naafila xanaa kooku kooku du biddanti de mi ngi noonu bu masaan rek te ñoom seen jamono réveil amul lenn lu leen di yee amul biddanti yomb lool waaye xiyaamul layli bu ko masaan faat guddi gi tey guddi ga ca tegu du nelaw kon nag loolu yow jullit yàlla mën na laa nattu day bis nga faat fajar gi waaye bu loolu passé fexeel ba bala la dalati di déwén incha allah waaw bismillah naam ala kulli xaal yonent bi alei salaam dañu doon jàngal su ngeen déggee noddukat bi di nodd wax leen li muy wax su ngeen déggee noddukat bi nodd wax leen li muy wax bu yegsee nag ci hayya ala sala hayya ala alfala su boobaa la hawla wala quwata illa billah ngay wax mu des buy wax asalaatu xayru min annawm lu bari ci borom xam-xam yi dañ ne comme yonent bi nee na waxal li muy wax yow it da nga naan asalaatu xayru min annawm su noddegee pare nga julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam gannaaw ba doog koo ñaanal wasila kon noonu la da ngay ànd ak moom ci nodde gi su pare nga julli ci moom ñaanal ko wasila mi ngi noonu te ñaan wasila googu lu am solo la la ci gën a gàtt mooy yàlla yàlla na nga may yonent bi alayhi salaam al wasila jeex na loolu ci gën a gàtt donte ne nañ koy waxee ñi jàng xam nañ ko اللهم رب هذه الدعوة التامة وصلاة القائمة آت محمدا الفضيلة والوصيلة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته waaye bu dee loolu mënuloo ko yonent bi ne ñaanal leen mu wasiila foo dégg aju noddokat ba àndal ak moom su paree julul ci yonent bi alayhi salaam su paree nga ñaan ñaan yàlla yàlla na nga may yonent bi yàlla yàlla bi al wasiila mooy place bi gën a kawe ci aljanna ka kay yeeyoo mooy borom maqaman mahmudan bi nga xam ne nii mooy xëcc di jurit ñi yowm alqiyama incha allah yàlla dana ko jox suñu yonente sallallahu alayhi wa sallam nee na nag ku ma ko ñaanal yowm alqiyama dana dagan nga bokk ci ñi may rammu yàlla na yàlla boole ñu te ña yonente bi di rammu yàlla na moom ñett noppi ah ñett noppi naam ala kulli xaal fajar ñaari nodd la am fajar amul ñetti nodd ak ñeenti nodd soo demee ñun fañ cosaanoo diggante géwul ak Louga boobu minute bu dee gan nga moom doo nelaw quatre heures du matin suñ caam dana ñëw nodd suñ sow ñëw nodd suñ ñaay ñëw nodd doo nelaw mën na la ba ba fajar da jot mbokk loolu islam xamu ko woon yonente bi alayhi salaam ñaari nodd la fi bàyyi noddu Bilaal noddu ummi ummi maktum noddu yeete boo ko déggee àndal ak moom ndax loolu lu ñu sunnal la nodd bu mujj bi bi bi bi ñuy def pour wane ne julli ko jot na àndal ak moom loolu sunna la amma yeneen nodd ya gaa yi nodd rek ngir defulawu loolu moom beneen bir la ala kulli haal yàlla na yàlla dëpp la ñoo ngërëmam wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain